salaamaaleykum jaa ngeen jëf sama gaa yi di leen nuyu di leen ziar te nag dama bëggoon wax ak yenn patriote yi nga xamante ni ñu ngi doon attaqué sunu grand Assane juuf dëgg la ñu baree bari neneen li mu wax waru ko wax parce xarekat dafa am foo xamante ni boo fa tolloo di yoon ngay teg gànnaay yi ci suuf man sama propre jàngat nag dama gis ni njuumte la njuumte la bu leen sonn que nguur gi lu mu bëgg a def da koy def Ousmane Sonko loolu nag am na si ay jàngat yu bare bari yu ma si def parce que li ma gën a jaaxal sax si wax ji li mu ne waxoon nañu doomu président Karim Wade kenn du ko jàpp jàpp nañ ko ñu ne kenn du ko tëj ñu tëj ko ñu ne kenn du ko jugé jugé nañ ko def ko aussi xalifa Sall mais foofu dama jàpp ne sunu grand Assane dafa juum Ousmane Sonko. ak Khalifa Sall ak Karim Wade bokkuñu tolloo ñu sax dayoo loolu moom yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko ci histoire senegal dayo dayoo bi Ousmane Sonko am ñu bare bari danañ mosul am politicien bu am dayoo bu toll noonu parce que Ousmane Sonko mooy nit koo xamante ni su ne woon soxla na dix milliards tey wala suba balaa vingt quatre heures mu am ko kon defe naa ni dayo yi tolloowuñu te bu ñu fàttali nag xalifa Sall Karim Wade ñoom ñëpp ci système bi lañu bokk te en plus dafa am loo xamante ni aussi foog ngeen xam ko ñooñu dañuy politique donc ni nag Ousmane Sonko day politique mais parti yooyu ak parti Pastef bokkuñu ñee politique la ñu woote waaye ñii révolution la ñu woote su ngeen xoolee Pastef ni muy doxee révolution la ñu woote moo tax ba léegi mënuñoo tolloo dayoo. waaye nag Assane Diouf xëy na tamit da nga nekk si réew moo xamante ni boo amul courage dëgg dëgg dëgg da teel a doyal ci xeex bi dangay sonn parce que am na si li may faral di wax am na si ñoo xamante ni dangay xeex ngir askan wi ñeneen si askan wi toog di la xeex loolu mooy problème mu Sénégal moo tax nag man damay wax ni yenn patriotes yi peut aussi Assane Diouf dafa jóg ñu ko ko xoolee buñ ko ko jàppee analyse bu mu def nag ñun dañ jàpp ñun. dafa ñun dañ jàpp ni dafa passé à côté parce que boo demee bay tekkale Sonko ak Karim Wade ak Khalifa bokkuñu ndax ñee lu mu bon bon bon am na fu leen nguur gi jaar ne am na lu ñu comp si xaalisu askan wi waaye ba léegi Ousmane Sonko ñu ëpp si askan wi dañuy jàpp ni politique la pour faagaagal benn candidat boo xamante ni dañ ko ragal en deux mille vingt quatre moo tax nag pour man foofu grand Assane da nga juum.